ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk yi xam na ne kat ramadan mi ngi wéy mi ngi jeex dara desatu ci lu tuuti la ci lu neewa ji a des kon ndegam li ci ëpp jàll na li des te muy fukk yu mujj yii nanu ci maase góorgóorlu góorgóorlu ci ci ak jaamu yàlla ci xeeti jaamu yàlla yépp ndax kat euh, fukk euh, ñaar fukk yu njëkk yi képp koo xam ne raw na ko moom ci nu bokkut ak na mu bëgge woon mu dunde ko ko wala nañu ko nañu nañu sàkk ko ku ko dunde ci ñaar fukk yu njëkk yi mu dabaatal ko ci fukk yu mujj yi ndax kat bu defee lu mel noonu muy fukk yu mujj yi dundal ko ki nga xam ne moo gën a fonk fukk yu mujj yi gën koo dundal mën naa am loo xam ne ka sonn ñaar fukki fan yu njëkk yi sax du ko am moom fukk yu mujj yi sonne ko man naa waral nga am loo xam ne ci tuyaaba ki nga xam ne moo sonne woon ñaar fukki njëkk yi du am kon képp koo xam ne fekkoon na nag mu nekk ku kuy góorgóorlu ku farlu kon na yokk ak góorgóorloom ci fukk yu mujj yi bu mu bàyyi ba yegsi ci fukk yu mujj yi tàmbalee di di yokkata ka kon góorgóorlu googu mu ne woon na ko yokk ndax te xam kat fukk yu mujj yi gën te moo ëpp ab yool itam moo gën te moo ëpp ab yool ndax lan fukk yu mujj yi at mi yépp at mi li ci nekk ci ay bis ñett téeméer juróom benn fukk ak juróom yi ñuy wax fukk yi ci gën mooy fukk yi moom fukk yi mooy yi gën ci fukki at mi te it laylatul li ci ëpp ci lay ci lay am laylatul xadr li ëpp ci fukk yu mujj yi ci lay ci lay nekk ba bii lañ ko doon màggal fii te borom xam yi leen dañuy wax ne sax ñoom fukk yi du ko génn moom fukk yu fukk fukk yu mujj yi laylatul xadr du ko génn moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñu waxoon ne euh, laylatul xadr bu ngeen ko dee seet na ngeen ko seet ci fukk yu mujj yi bu ngeen ko ci seetee dangeen ko gis insha allah kon bokk na ci li nga xam ne nag yittewoo ko lu ko matte la ak sonne woo ko ci fukk yu mujj yii loolu mooy lan mooy muurum koor muurum koor euh, dafa war waajiba la nekkut loo xam ne dañ naan kii moo koy def bàyyi ke kee bàyyi wala ñaan kafaatu kifaaya la bu ñuy defee yóbbu déedéet waaye ñépp la war ñepp la war mo xam mag la ndaw la goor jigen kon murum koor lu mata sonne wala yonent bi sallallahu alaihi wa sallam da ko ci bepp julit mu gennel ko bopam waye kep ko xamne ne koy dundal itam daf ko war gennel murum muurum koor daf ko war gennel murum muurum tol way ba nak moy li wax saa te moy ñenti muddu ci muddi yonent bi sallallahu alaihi wa nga xane tolluwaay bi ci euh, fii muy doon ñaari kilo ak genn waa ñaari kilo genn waa ci lañ koy génne waaye nag ñoo koy génnee ci li nga xam ne moo ëpp ci dundub bërëb bi nga ne te ku ne xam ne ne fii moom euh, ceeb a fi ëpp ceeb ci lees ko war a génnee euh, jëmmi nag génne ko ci xaalis loolu moom Euh, borom xam-xam yi boroom xam-xam yu mujj yi bi ñu seetee gis nañ ne moom mën naa ne mën naa ne nga xam ne ba ci këruk azaka yi nga xam ne moom lañ taxawal fii ci yoonu murid yi ki dem rek maa ngi gis ñuy dugal di wax bi ñu xay bi ñu defee xayma ba li mu tolloo ci xaalis fi mu toll nii mi ngi toll ci 900 francs nga xam ne bopp bu ne rek war naa génnee 900 francs bu fekkee ne ci kuy génnee xaalis la waaye la ñuy waxoon nag mooy jëmmi génne ko ci. Euh, benn ci yi nga xam ne moom lañ tànn ku ko ci génnee moo gën waxtu wi nag mi ngi tàmbalee ci bu jant bi sowee ci bis bi mujj ci ramadan weeru koor bis bi ci mujj bu jant bi sowee foofu la euh, foofu la foofu lay foofu lay tàmbalee war nga xam ne boobaa da nga ko da nga ko mën a génnee da ko daal di mën a génnee ba ci sax ki nga xam ne euh, bi eh, bi jant bi sox bi jant bi sox fekk na juddoogut wala dafa judd dafa judd njëkk jant bi sox kooku rek des ko war a génneel muurum koor kooku def ko war des ko war a génneel muurum koor naka noonu ki nga xam ne eh, dafa faatu njëkk jant bi so kooku waru koo génne ndax lan ba muy war fekk ko fi ba muy war fekk ko fi kon euh, li ko dara ci euh, soow jant boobu ba jant bi di so di sowaat ci bisub julli nga xam it loolu mooy waxtu wi nga xam ne ci lees ko war a génne moom ma des na koo génne na ñetti fan njëkk njëkk kon waaye nag bis bi romb wala waxtu wi romb du tax mu wàcc moom léegi daa gis koo xam ne yor na ko mën na ko waaye du ko génne dafay nekk di dig digal ba jant bi so bu ko defee mu jant bi so na du tax mu mu wàcc ko kon daf ko war a génnee waaye ki nga xam ne nag euh, daf koo amut euh, itlaaqan moom jëmm amut amu ko ba jant bi so nga ne moom amu ko kooku moom wàcc na ko ndax da koo amut mënu ko daf koo amut moo tax kon na xam ne nag li ñu wax ci lépp ci ne diggante boobu ci ci lay war ci li ko war a génnee la gën ca génnee ko nag mooy diggante euh, jëmmi njëkk ngay julli ji julli ayit gi muy julli kore gi wala muy julli muy kore gi njëkk ngay dem di ko julli ji ci nga koy génne ndax yonente bi sallallahu dafa wax ci muurum koor ne mburum koor kat day seetal jëmm ji ki nga xam ne dafa wooroon muurum koor moo koy seetal ci ay rëcc-rëcc yoo xam ne defoon na ko wala ay njuumte yoo xam ne gaar na ko ci biir koor gi teyit muurum koor day nekk tooma maanaam jëmmi ki nga xam ne ku néew doole la yow man nga sa boor ba tax nga ba tax yaa ngi yaa ngi jënd sa bopp sa kër boo ko jëlee jox ko ko moom ko nga ko da nga ko dimbali ci ci ci ab dundam ci moo xam ci bis bi rek la wala sax da dana jàll kon képp koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne képp ku ko joxe njëkk muy njëkk njëkk julli gi loolu moom azaka la ju ñu nangu waaye ku ko joxe euh, gannaaw ba nga xam ne julli nañ julli ayit gi ba noppi dane sarax la ci sarax yi rek duñ ne buñ ne sarax la ci sarax yi rek ju jubluwuñ ci ne daa saraxi nii waaye dañ jublu mooy jëmmi njëkk julli mu joxe ko ko yool ba mu am du yem ak yool ba ciy am moo mu julli ba noppi joxe joxe ko mënuñoo yem moom jëmmi joxe njëkk ko joxe njëkk julli moo ëpp tuyaaba te jàpp naa ne nit ki moom lu muy def lu ne war na caa dàkk yool bu mag a mag ci diggam ak boromam yàlla nu yàlla jéggal te defal nu tawfiq tey siir نبا إبليس ñoo ngi lay ñaan nga abonné nga bës ko la sa tax vidéo bu dugal